leen di fàtte abonné ci suñu chaîne bés cloche de notification bi ngir am bépp vidéo boo xam ni dugal nañ ko Cayar 24 vidéo yu am solo la ñuy def ñooñu rek ñoo fi daje ñoo xam ne seen cofeel ci maam Cheikh Seydul Haaji malik radiyallahu taala anu kenn mënu ko nat seen cofeel ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn mënu ko nat seen cofeel ci njabootu maam Cheikh Seydil Hadji Malick yëpp kenn mënu ko natt loolu nag moo indi mbooloo mii ñii fi daje kenn mënu leen a génn ci njabootu Seydil Hadji Malick ci la ñu bokk ndax njabootu pas-pas moo ëpp doole njabootu dret te ñi fi ñëw ñëpp pas-pas moo leen fi indi maa ngi ñaan nag <coughs> li nga xam ni daal jox nit soo joxee nit mu lekk yiw ga nga xam ni moom nga cay jële waaye waaye yàlla na ko yàlla dooti seen kaw amiin def ko mu ne faju aajo biir ak biti mébét bu fi waay indi te mu jaaxaloon la te tewoon la ci barke lii ñu def nii waaye yàlla na la ko yàlla tegal amiin te boo fi jógee nga yëg ni ñaan gi nangu na yàlla nañ ko yàlla defal ñu defaat lii ay ati ati at yu baree bari wax leen amiin jàpp ni ñi ñu koy defal ñun ñu leen de ëpp ñu leen dara ñun dañ koy def rek yéene ci jaamu yalla yalla nañ ko yalla nangul yalla nañ ko yalla nangul ak ñi ci bokk ñëpp barke yonent bi sallallahu alaihi wasallam kon sëriñ bi naal mu ngi ñaan bu ñu xamni rek mbir mi Sidi Ahmed moomu ko samba moomu ko Mademba moomu ko ñëpp ci lañ bokk na ci ñëpp jappat bu jëgë liñ def ñu wat ko ndax lii nii am na ñu ko bëggoon def waaye ñun la ko yàlla cërale ñu ko ciy sant moom yàlla bu baax delluwaat sant association bi muy coordinateur muy secrétaire général comité d'organisation membre yëpp ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm ñu ñaan comme koor dafa xat te nit ñi dañuy wàññeeku ñaani yàlla rek yàlla nangu nee na kii toog sëriñ Maam Malick si raqam la ñoo bokk nday ak baay sëriñ maam maag si la tudd suñu raq la mais suñu xarit la suñu wóllëre la ay moroom lañu maag moom buñ toogee ak Cheikh Mouhamed kenn do xam kii yey mag kii mooy raq ñun dañuy jàpp ni ñun ñëpp ay moroom lañu te lii may wax yàlla rek laa koy seedeel léegi nii rek ñu ngi tooñante fii ñu de te kenn xamu ci dara ñoo bokk waaye ci biir mbokk gi dafa jur xarit kon sëñ Maam Malick yàlla na yàlla fay la yàlla na yàlla taxawu leen barkent bi sallallahu alayhi wasallam ku ci ne boo gisee ni nga may jàppe boo gisee sëñ Maam Malick mi feneen na nga ko jàppe noonu ndax kër Seex Seydi Hadj Malick xëy na mën ngaa tuuti ci at waaye doo tuuti ci maqaama de loolu cër la bu leen yàlla defal kon yow sëñ Maam Malick sa bopp yow yaay tëj ñaan gi وصليا يا إلهي وجزيا أبدا الأنوار في القلم كذا سلامان بطن في قضاعته سبعة حبيب بن عمرو في مرتسم وصلي يا إلهي وجزينا أبانا محمدنا المختار في القدم كذا سلامان بطن من قضاعته سبعة حبيب بن عمر في أمر تاسيم مولانا وصلي يا إلهي